moo tax ñun ay ancien rappeur ñu mais benn instant lañu naan booy def leen attention ci rap bi booy ay français yi ñoo ngi ñëw di fi di financer. di leen financer jeunesse bi di leen financer gis ngeen ay mouvement ay ay gars wax xaw ma lan ay kii day joxe les kii urbaine la culture urbaine ak nangam nangam ay union européenne di kii ñu jël benn booy jox ko 5 millions waa Afrique culture urbaine jox benn booy 5 millions di nax booy jox la benn certificat léegi benn booy mooy génn yeneen booy yi commencé comme ay ay ay ay seen petit gàlle genre la rek benn booy léegi jox lañ ko 5 millions yeneen booy ne seen moyenne moo ngi ci 5 millions yi mais fan lañ jëlee seen union européenne moo jox mais union européenne dem leen en France dem leen États-Unis dem leen Espagne nga xool tubaab yoy ndax sen jeunesse sen jeunesse ñom ñoom nekk ñu ci galère dem len ci banlieue en France ngeen xol yane galère la xalé yi di dund foofu surtout les boy les ay boy français mais galère yu met lañ fay dund laa jël ñu xaalis boobu ñu jox ko sen jeunesse ñew diko jox sen parce que veulent nous endormir quelque part ci ay affaire yo xam ñun duñu ñu jëngu seen kaw Lolu kese la mais tay rappeurs yi taxawon tay waron nekk porte parole du bas peuple waron lolu loolu moo tax mo taxone jox rab bi et ñun nous sommes les seuls alhamdulilah à été à être constant par rapport à ce combat ñoom ñëpp ils ont retourné leur veste ñoom ñëpp ay awadi mi fi le bureau est noir tey il collabore avec l'ambassade de France même conseil 30 ans hip hop Sénégal jeunesse mais bon, fa taxaw euh, li may wax ni c'est parce que rap mooy affaire de jeunesse quoi jeunesse bi ñëpp gëm rap ok moo il faut ñu wax quoi majorité bi dañ gëm hip hop mais 30 ans dem avez ngeen jeunesse hip hop ñu ne awadi taxaw de France ah il supporte le rap sénégalais ñoom dëgg tiiwat ñeneen ñoom xumaa nag gars yi rek ñoomin matador ak ñoom ñëpp laa wax ñi fi doon taxaw naan haat koo haat koo fa wax ci dafa ci baax fokk am ku wax ñi naan le bureau est noir ñi naan xaw ma lan euh, xumaan whatever ñooñu taxaw di tàcc mais j'étais ahuri quoi ma ni mais ñoom donc li ñu doon wax gëmuñu si dara gëmuñu woon dara ci affaire bi parce que bu ñu ko gëmoon wala benn instant nga égoïste wala nga def comme ñun nga dem outil te <laughs> man nga uti après nga yóbbu ko Sénégal nga xool nooy jàppale jeunesse bi 313 ci loolu lañ nekk instant bi tamit ci loolu lañ nekk ñu ñoo ngi job pour jàppale jeunesse bi loo xam ne c'est gratuit ñun ñëwuñu ne jeunesse bi dañuy investir ci yéen ngeen liggéey ñu jëlaat ñun ay bénéfice non non dañoo jël xaalis bi ñu jox ko booy yi ne job leen loo leen ci am yéen a ko moom seen ngeen dugal ko seen poche ñun ci loolu lañ nekk parce que loolu lañ yoreel xale yi tey parce que ñun ñoo tax ñoom ñu dugg ci ay hip hop ak waree benn instant mais nag il faut que ça soit engagé parce que man xam ngeen sama sama mind par rapport ak musique ok mais encore une fois bi ñuy woy sans commentaire kenn du dégg sans commentaire di fecc ñu asaka miskin dañ koy faat fakir baa ngi sukuraat lu tax jéem ñu faxe faale gëstu wàññe ñi moo tay ñàkk di gàññe ñu amul lu ñu jëndee kilo bi njaboot bi war a añee yi këree njaboot nu mu ko wëree gisal borom kër gëlee góor gi pou këree saxaaru xeebaate num ñu koy xëree saa yu dërëmam génnee day fekk muy sentu gis leen ma xam leen ma seytaane yi naw leen ma tabaski ñeent fukki junni lay jëndee xar yow si benn car ci garabu nim ci buntu kër gi foog ni moo ko war jabar di yëgle mbete ku yëgle sabar dëkkandoo bi day ci xiif ak mar jëndal ko xar nga foog ni ëpp loon tiyaaba di ko génneel ay nar <laughs> booy jëw naan la yàlla dina laq ay nit ci benn son benn son ni mu lay laqee ay saqar may wax benn saqar dégg ngeen euh, euh, euh, soldaaru mbedd